troisième édition conférence bi nga xamanteni ni Touba ci kanam da naka amal at mu jot ci dekk bu sel bi di Touba tay ji nak mu don ko amal fi ci mbaram Daara khodous waye ci conférence bi nak bi mu jexé mu don fa amal ay don yo xamné don nako jox li di mbokki talibé yi nga xamné ne seen loxo jotul seen ginnaw te ñu dëkkee ci gox yi fasantikoo ci biir dekk bu sel bi di Touba. waye it may ay chaise roulant ñi nga xamanteni ni ay handicapé lañ ci nek ci dekk bu sel bi di Touba loolu lepp nak Touba ci kanam taxawal ko ci at mu jot mu koy fas di amal ñu déglu ki nga xamne ne jité social bi mu wax ñu na kan lañ tànnee doomu aadama yi nga xamne ñi ngi leen di jox doom quartier ñu tan ren nak ñu non quartier bi ñu wax bëbëreel ak darul ak quartier mam jaara sanc darul rahman fu ñu wax mbuluñ ak ak umul khura ak euh, sanc ndindi ak sanc tuba tundóo di nak bu ñu recensement boobu képp ku dem ci yow ba xamne ne nga dimbali dañ lay yox dañ lay bind sa tur bind sa numéro téléphone jox la benn ticket bu ko defee nag ku nekk xam na ne social la waaye tamit euh, jàngale waale la ci am dañuy def ab conférence boo xam ne nii commission bi ñuy tuddee scientifique et culturelle ñoo koy tànn thème bi ren jii ñu ko doon waxtaane ci dimbale ci yàlla ci yoonu yàlla te yàlla tax euh, ren jii bi ñu defee conférence euh, conférence bi ba noppi nag ci lañ fas yéene séddale ndimbal yi mu toll ci 400 familles ndax at mu jot dañ koy yokk ren mooy troisième édition bi famille bu nekk ñu ngi lay jox cinquante kilos ceeb ak suukar ak tàndarma ak mille francs yoo xam ne ak yére ak boo xam ne da nga ko euh, suñu mbokk yi nga xam ne nii seeni i cër dafa wàññeeku ñu ñu tudd handicapé yi ñoom tamit wut nañ lu tolloog fukki sées fukki fauteuil roulant ak juróom ak 15 euh, euh, beek yoo xam ne danañ ci mën a dimbali loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon séddale fii ci liñ ci jublu mooy sàkku ci ngërëmal yàlla te jaare ko ci Serigne Touba ndax ku nekk xam ne ne euh, boo jàng alxuraan néewaa na fa suñu borom tuddee ak julli wala mu tuddee fa koor te tudd joxe sa alal doy na sëkk rek li suñu borom wax yéen ñi nga xam ne jox naa leen alal ji ma leen jox nu ngeen ci jox ñi nga xam ne dañ koo yeyoo ndax comme ni ko olof di waxee rek suñu borom mayewut waaye dafa dénkaane te suñu borom wax li nga xam ne dama leen koo jox dama koo dénk dama dama leen cee délégué da ko dépassé waat ci jaamu yàlla yi loolu waral euh, ñuy def sa ñuy ñuy sàkk ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla sàkk ngërëmul yàlla ci gën a gaaw mooy jot nit ñi. moom xam ne moo jiite social nag fàttaliwaat nañu bu baax a baax ci doxin wi nga xam ne Touba ci kanam noonu lay dox. Touba ko taxawu population bi ci seeni i jafe-jafe te. cas yi nga xam ne nii moom la ñuy traité muy cas sociaux yi dafa bari ñoo xam ne nii wéradi ñu am bu ñëwee ci ñun dañuy fexe ba seen wéradi googu fekkee ne doon maladie boo xam ne mën na mares na koo faj dañuy fexe ba jàppale leen ba ne maladie la boo xam ne dafa chronique dañuy fexe ba feeñal suñu yéene ci ñoom léegi nag ci loolu lay profité defaale benn sensibilisation ñu fexe ba nit ñi li ñuy utiliser produit yi ñuy jëfandikoo ñu fexe bay seet produit yu baax ñu koy jëfandikoo te fii ci dëkk bi dafa bari ay cas yoo xam ne dañuy jalise te machine jalis wu looloo tax nag social ci ay activité yi muy def suñ bokk yi nga xam ne ñoo ñu nekkal ci diaspora bi rawatina waa Italie ñoo defoon ay démarches ba am nañ lu tolloo 14 machines jalis yoo xam ne accès ci port Dakar yaakaar naa su agsi wu Touba tey bi ak yeneen ñetti ambulance loolu lépp pour yi nga xam ne nag moom moo sant sëñ bi sant ñi nga xam ne ñoo leen ci jàppale bu baax a baax te ñaan yal na yàlla doole xeewal yi. rafet na jëf ji rafet la yëg nañu ne daal mu wax dëgg yàlla suñu mbokki julit lañu jàppale nañu. ah xanaa ci Kanam ñëpp rek ci Touba ci Kanam ñëpp li ñuy li ñuy laaj ñu di ko def rek képp laa ci xam man. di sant Touba ca kanam rek di ñaan yàlla mu gën a yokk taxawaay bu baax a baax a baax ndax jëf ju rafet la wax dëgg yàlla lii moom jëf mënu koo gën a rafet di ñaan yàlla tamit Touba ca kanam yi bari fi lool nag ci dëkk bi ndaxte buñ fi baree rek bu soobee yàlla léegi bu soobee yàlla dina am loo ak saa ab soppeeku bu am bu baax a baax a baax